mujj nga ñàkk ko nga jóge fa jël xale bi nga xamante ni nii kuy bëreeg moom di nga di nga ko bàyyi xel ci wàllu bëri ci wàllum xeex naka nga ko na waajee est-ce que doo sa bopp comme li jotoon am bee paase. la naan la boo gisul staff nga indi sa nga indi sa mënin quoi. que ñëw nga xeex ak Mbagnick. gënal kaay añ. non mais dama ne est-ce que ñem ngay xeex ak mbañu kaay la. xeex moo ma gënal kaay añ loolu dañ ko tarbiw xam nga ku jaar daara ah jaar feneen ak feneen ak feneen ay xeex ak diw ak diw nii non non aw ma si choix lu mu gën a pungal gën a baax lu mu gën a diis gën a baax. ñëpp bi mooy seen gën a bu combat bi bu combat bi maanaam doxalee bu combat bi taxawee maanaam bu ngeen jotee avance naka ngeen ko nar a waajalee. dañuy waaj rek comme d'habitude. non comme ngeen am seen premier grand combat nga jóge ci défaite moom mu jóge ci victoire naka nga ko naa waajee. Ah, man moom làmb yëpp laay waaj moom ku ma xam du ma ko benn làmb muy petit combat grand combat lépp man chaque jour am si nekk ma dégg mu ne ñi ma ne xeex ak ndax moom kaay xeex moo ko gënal kaay lekk. mais làmb la nag làmb lépp am na bëri dóor lañu wax. non bàyyi loolu parce que fi mu toll nii nii ngay waxee nii. boo ñëwee bésub làmb yooyu ñu raw loolu ngay defee mais. non non kii ko mu neex fii jàmmaar loola. non mais bëri dóor bëri dóor la kay. bëre dóor du bëre simple. xale day def yëfu xale man dama di xale bu ndaw. làmb ku ko fonk benn fonk naa ko fukk. wuyul neen da waxoo ko. waaw ñu ngi waxtaan ngeen woote ni nañ nañ li wax si làmb ji moo gën ngeen tal li man jaaroon naa fi. Ah? fii ma fi gan. li ma fi wax da nga a woote quoi man toll yow ak moom. dama amul lu ma koy li ma ko waroon wax. dafa teel a woote quoi yóbbante la ko na ma ko jottali sama papa. loolu kese nga amoon ci loo koy wax.